Assalamu alaikum wa rahmatullah suis le président maître Moussa Diop président du parti bi nga xam ne mooy ànd de yi jot na AG jot une décision dem ci législative à la suite euh, d'une décision bi ñu par le PASTEF dem ak listam ñun ñëpp ñu dans lu ñuy euh, coalition de président demain nous avons ñu huit jours pour defar liste yi Sénégal dégg ma à travers li interpellé ci vidéo gis nga politique intégrité nga say dossier casier judiciaire ak document yu ak pour la pour la candidature. loolu yeb recevoir à temps ko barki dafa jeudi suñu mandataire Boubacar Camara comme nous exigé dem na à la DGE def suñu déclaration de candidature occuper la 51e place dem ci ngone la DGE yenn euh, message né suñu parti date bu mo wara ñew pour déposer c'est le dimanche tay à 10h 15 depuis que je suis je transfère mon mandataire. Je suis habilitation pour déposer. Je suis parce que message m'a été ko vers 19, h 18h et quelque ba mu ñu ko jotee ba léegi ma transféré ko gisuma réaction Boubacar Camara si suba ñu jéem ko jot par tous les moyens a ay autre également à Thiès pour jéem ko nous n'avons pas pu le voir. moo vers 12h, à ma grande surprise nous avons ma une vidéo bu sur le net où nous avons vu Boubacar Camara qui est un responsable de chargé des élections une conférence de presse hier qui a été tey di nan mom d'accordul ci décision bi ñu jëloon dem ak AG jot na def campagne kii bi nu mu élection législative ci suñu liste comme ñom approché par certaines personnes xawma nak nag ñan ñan que bëgg a ay nit ak ñu Ousmane Sonko Ousmane Sonko ñoo bokk camp ñun ñëpp de la mouvance présidentielle la ñu nekk mu leer ci bop ñëpp mais compte tenu de sa décision ba avons informé tardivement que mon parti, lay demee président du chacun était libre de vouloir dem ci campagne bi lu mu am indil ko la mouvance présidentielle Nous avons ne jóguñu fa fa mais depuis que je jotuñu ko ma informé la DGE très tôt nous avons une difficulté à 10h19 la l'a laa informé di def tout tout de suite une réunion d'urgence avec le parti sachant que les investis au parti bu convaincu, 20 12 ou le 13 ne bokkuñu ci parti parce que c'est des éléments de gens intègres yoo xam ñoo yónnee c'est ay documents te jaaxle dit que toll nii. loolu Lorsque nous ñu tenu une réunion d'urgence génn fa décidé de lancer un ultimatum à Boubacar Camara xaw fu mu mais daañu ko def tout de suite dans les réseaux sociaux et dans la communication pour que à ak 23 h mu indil ñu suñuy liste yi nga parce que dépôt ay casier judiciaire yu bees ainsi que dossier yu y compris la caution tout mu indil ñu liñ ko jox mu del ñu pour que balaa DGE avons une élection dépôt avant minuit nous ñu déposer aussi dans le temps nous sommes dans des difficultés aujourd'hui liées à ça passé 23 heures nous irons à la au commissariat pour porter une plainte parce que jël document yo xamni de de parti bi ñep ko dans ces conditions là kenn mënu ko jot injoignable je pense que c'est une raison très sérieuse boo xam ne vraiment dépasser les bornes et bien entendu violer tout en partie, mais uniquement pas boppam. xaw ma nag position bu occuper occupé l'Est, liste bi nga xam je xaw na sore tuuti moo ko parce que lu muy wax mooy am na ay nit yu ko yu ko jege si nous avons retiré candidature pour dem le Pastef ñun ci mouvance présidentielle Nous nekk mënuñu bañ jàppale ñi nekk mouvance présidentielle loolu mu leer ci ñëpp dama gëm ni démocratie interne la majorité bi ne nii loolu la ñuy Moi, moom ci minorité bi la nekkoon parce que nous avons des consultation dans le parti nous sommes d'accord dem ci élection donc 23 h c'est pour bientôt faute tout simplement de réaction de Boubacar Camara fii 23 h nous mën a dem dugg avant minuit d'aller déposer plainte pénale dans ce cas là contre sa personne et mu tirer sur toutes les conséquences Je vous remercie di gërëm tenir informé de l'évolution de la situation di remercie également ñi nga que beaucoup de sax ci mais nekk des personnalités euh, duggoon ci liste yi di xaar ba ni mais maa ngi au fur et à mesure Je vous remercie. di très bientôt merci